Quel master dégg suñu bato ñun bateaux am ñaar chinois bu Jap. mastam bon na sénégalais yi laaj na mool yi laaj kan y am ñeen fukki at ak ñaar am ay bato ñun ñu nekk sénégalais am ay usine fukki at yi passé Sénégal dafa changé mais mënuñu continuer di dox comme ni pêche bi doon doxé il y a de cela 40 ans géej gi ressource bi mu ngi menacé wu dëgg la deug la géej gi ressource bi fi nek man na new deug la deug la mais li fi nekk kës new dañu ko bok ak ñom bon dañu ci yem ak ñom li ñuy laaj ñun moy un partage un partage na état bi def un système de quota ba nga xamantene ne sénégalais bu am bu am bateau dina am droit accéder ces richesse yooyu GAIPES benn club de riche la passé ñu ñaar fukki nit ak depuis ñeen fukki at ñu ngi monopoliser géej gi loolu la ñu wax ne dafa war a jeex pour loolu jeex ñun kenn mënuñu miim ne existé wuñu boo demee port am nañ fa 2800 marins si biti li ñu am si ay ay ay ay ay ay industrie GAIPES amu on fait travailler près de 5000 personnes en dehors nañ ñu woo ñu laaj ñu nan la ñuy def bañ a dëg ba jël benn parti rek di wax ak ñu ñu rey suñu ay entreprise